ñu leen di nuyu di leen di sant di leen di gërëm di remercier le président Macky Sall bi xam ne mooy le président de la coalition Benno Bokk Yaakaar ak mouvance présidentielle élargie ñu joge ci parrainage di remercier madame Aminata Touré bi nga xam ne moo nekkoon coordonnatrice nationale chargée de la collecte des des di leen di remercier l'ensemble di remercier l'ensemble des ministres des honorables et les autorités les directeurs généraux et PCA ñi nga xam ne ils ont mouillé le maillot pour donner le président Macky Sall un maximum de parrainage di wax ne actuellement dañoo nekk ci processus joutes électorales yoo xamante ne sont cruciales pour la politique nationale mais surtout suñ parti politique ak suñ coalition Benno Bokk Yaakaar di wax les chers camarades de la coalition Benno Bokk Yaakaar ne nañ booloo doon benn nañ booloo doon benn liste bi nga xam ne président Macky moom lay génnee moom la choisir ngir yàlla wa rasul ñu ngi ñaan képp koo xamante ne patriotisme politique moo la inspiré gëm nga président Macky Sall gëm nga vision gëm nga lu muy def dañ lay ñaan ñun ñëpp ñu uniru booloo suñ doole booloo suñ xamxam xam booloo suñ force ànd jusqu'au 23 juillet euh, prochain ñu gagné avoir 23 juillet le euh, 31 juillet prochain ñu am une majorité absolue à l'Assemblée nationale c'est le seul combat qui vaille aujourd'hui et on dit que ñun duñ nangu nag fu mu nekk nii ay Barthélémy Dias ay Ngouda Mboup ay Ibrahim Seck ñooñu force forces encagoulées là ces politicards là ces délinquants de luxe ces menteurs sans scrupules la ñun ñu ngi leen di wax ñun la jeunesse république les jeunes cadres de l'APR la COJECAR ñu leen di wax en fera face dinañ jamarloog yéen ba ngeen xam ne tekkiwu leen dara moom leen tous parce que li ngeen di def tegu leen ko fen manipulation bi nag ngeen nekkee fii du fi amati day jeex takk parce que la woon na actuellement génnu leen ñu soxla lu ñu yor yéen da ngeen en enquête Barthélemy Dias su amee ñu muy saaga su amee ñu ñu muy wax naka su noonu na dem attaqué ji ñoom Saliou Sarr ak ñoom ak ak ñoom Khalifa sal ñoom ñoo xam liste bi ñan ñoo ko defar ñan ñoo ko tripatrier moom moo ko xam la liste nag c'est irrecevable parce que code des collectivités locales code euh, article 6 def ci wax liste bi c'est irrecevable du coup parrainage parité bi respecté wuñ ko liste boobu noonu c'est irrecevable il faut que les choses soient claires s'il a des choses à dire su amee lu muy wax su amee ku muy waxtaan su amee ku muy attaqué na dem yeewi actuellement ils sont dans la dans la dèche ñu ngi dund luñ mësul yaakaar ci àdduna parce que ñoom ñëpp un conglomérat de menteurs et de manipulateurs et de délateurs ñun nag jeunes ndaw yi président yi ñu nekk les jeunes cadres on fera face Dakar ñun ñoo ko moom on fera face avec eux on sera face avec eux jusqu'au niveau national dañuy jamarloog ñoom lépp luñ bañ bañ ko ci lépp luñ bëgg bëgg ñu ñoo lañ ko gën a bëgg fu ñuy woo ñun pare nañ que ça soit clair Barthélémy Dias nag man personnellement dama koy ne na continuer lu muy def il me trouvera sur son chemin parce que les jeunes cadres ils son plus que dévoués pour daño pare combat mortel combat bu ñu doon wootee ñun on est prêt pour ça ñun on est prêt pour sa nañ xam ne ay góor yàlla lañ ko saqal la woon moo fi jeex c'est fini ngeen baal ma ak ma